asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax na rek euh, man la Pape Siré Dia ancien international sénégalais di wax na rek am na xew-xew bu am muy dina Gueule Tapée Fass Plateau ñëpp waaw su may wax lii rek waa Médina moo tax may wax parce que dafa am concert bu am waa LP Events organisé le 31 octobre 2021 Stade Iba Mar Diop ak Sidi Diop waaw mu nekk événement boo xam ne dañ si sargal Pape Siré Dia waaw di wax ne rek waa Médina TV lépp ñuy suñu ginnaaw nekk ci di couvrir euh, événement bi waaw di wax ne rek kii bi yëfu Médina la yëfu ñuy soppe Siré Dia surtout ñu koy bëggee waaw di ñaan rek ñëpp ñëw jàpp si parce que suñu suñu suñu événement la affaire Médina la affaire Boy Town la waaw parce que lépp lu ñuy def rek pour rek waa Médina kontaan la waaw événement bi nag bu ko kenn rate waaw bu ko rate ñu si woo autorité yi nekk Médina ñëpp waaw di si wax monsieur le maire Bamba Fall ñu lay woo Cheikh Tidiane Ba ñu ngi lay woo ñuy woo Seydou Gueye ñuy woo Ousmane Ndoye Fass ñuy woo Pata Ndoye ñëpp ñu ngi leen di woo